say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la bége ba ñuy xëccoo wurus yow sama ngaar yaay suñu walam gis nañ fi émergence jafe-jafe ci réew mi yaa ko fi jële yoo lelelelelelele yoo aaye gis nañ fi lu ci mel ni jam ñaayo aleen na autoroute ba Ila Touba tabax fi ay juma maam nga dund nañu ay jafe-jafe yu métti damay jigéen njaboot néew doole sa suma kenn samay waajur gaañ sama doom yëpp daan jàng kenn rek moo si jàng ndax jafe-jafe yu metti man mii dama daan jaayaatu géej jak lu ne laa daan wër di jaay ndax ñàkk am lu ma kii sama borom kër néew na doole mu ngi ca por bee di gàdde amut man maay defa sama bopp dund maa daan defal sama bopp lépp. dépense bi jafe-jafe yi am métti na ndax sama jëkkër dafa retraité néew doole ma nekk ak sama njaboot sama papa gaañu sama yaay gaañu ma nekk bu dawee indi lii man ma daw indi lii mu metti lool nag. dama daan wut samay ceebi taalibe di wut di ñëw di toggal samay doom te mu ma reer maa ñee duma reer dama daan togg añ tibb ci reer depuis ba mu ma joxee bursam bii nag gis naa ci coqali ba bourse bi ñëwee bu weer dee bu ñetti weer yi jotee ma jënd sama ceeb jënd sama diwlin la ma daan bénéfice oo sa njaay ma ma jënd samay saabu sama yooyu teg fi am na fu feeñ fu feeñ fu baax si man wax dëgg yàlla projet yi ñu ngi ñu si jàppale tontine yi ñu def nii tey moom moo ñu ko indil financé woon nañ fi xaas bu bari te joxaat nañu beneen kayit dañu laaj lu ñuy liggéey pour ñu defal ñu ay yokk koom-koom seen lii yokk koom-koom la tudd mu ngi jàppale bu baax a baax wax dëgg yàlla gone samay doom bu ñu feebaree dinaa leen yóbbu ci hôpital bi te du ma fay dërëm waaw carnet bi bi ma jox daan na dinaa dem te duma ci fay benn dërëm waaw te dama daan feebar di wuti ay ay ay kii garabu garabu yi dinaa wut mbante dinaa wut wut ngeer pour fajee samay doom. gis nañ seen bopp bu baax a baax lu bari mu ngi si saafara yenn lu bëri wàññeeku na moom. te lii ñun ñu ngi koy door a am man de man maa nga door am bourse waaye bourse bi de gis nañ seen bopp yor nañ suñuy njaboot tàmmoon nañu ay jafe-jafe yu métti si kër gi. ñaan naa yàlla nag yàlla gën koo dolli gën koo garaatal ba gën koo yokk. ci lii mu ne wax fa dëgg yàlla mi ngi ciy dimbale doomu aadama na man xalaatuma woon a fayeeku juróomi junni par weer te maa ngi koy fayeeku man mii da yokk na ma te sama beneen moroom it yokk na ko ku dul waan ku xalaat a fayeeku juróomi junni weer dee nga am sa juróomi junni jënd ci sab saaku ceeb jënd ci diwlin nga dool lañ koy dolli du bëri ah man de man gis naa ko te am na ñeneen nit ñu ko gis waaw ceeb bi itam bi koy joxee gis naa ci ceeb beeg diwlin fa dëgg yàlla maa ngi koy sant di ko gërëm. ñun yaa ñu doy sàll ngaari lam tooro say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan sax di la La ville de Kaolack en quelque sorte avait besoin de beaucoup de réalisations. Kaolack ne détenait qu'un seul euh, lycée avec euh, la progression des temps il a fallu que les étudiants doivent rester ici à Kaolack parce que le problème qui existait à l'époque dans le domaine de l'éducation, à chaque fois qu'on obtenait le baccalauréat dans la région de Kaolack, de Kaffrine maintenant qui est devenue région, on était obligé de partir à Dakar ou bien de partir à Saint-Louis. Mais la réalité du, la réalité des temps veut que une université soit établie ici dans la région de Kaolack. Et à partir de ce moment, La très grande idée était de construire l'université Elagi Ibrahim Niass qui comporte beaucoup de branches à telle enseigne qu'un terrain a été choisi à Sing Sing et qu'actuellement l'université est fonctionnelle avec son rectorat et que les étudiants commencent à fréquenter avec les espaces numériques et tout ce que tu veux. Kaulak était pointé sur le plan des canalisation sur le plan organisation des déchets. Kaolack était pointé comme la ville la plus sale du Sénégal, si vous consultez Google et tout ce que vous voulez. Donc, euh, dans la ville de Kaolack, on ramasse quotidiennement plus de 150 tonnes d'ordures ménagères. Ça veut dire quoi? Ici à Kaolack, vous avez des caniveaux ou bien des canaux qui appartiennent soit à la municipalité, soit à Idal Consult, soit à la SONES. Mais tout ça, y a une gestion globale des choses à telle enseigne qu'on est en train de vivre une certaine progression sur le plan de la canalisation de Kaolack. Vous savez que Kaolack est une région carrefour, hein, une zone actisante, actisante, actisantogène, hein, donc euh, avec un hôpital euh, de type 2 qui est venu maintenant devenir un hôpital de type 3. Par rapport au désenclavement et la construction des routes, on peut dire que par exemple la route de Fatick à Kaolack qui avait suscité le grand problème à l'époque. Cette a été euh, on l'a réceptionnée. C'est la voie Kaolack-Fatick, vraiment que les populations attendaient avec beaucoup de souffle. Et vous, vous allez vers l'intérieur de la région en allant vers Nioro, en allant vers Sokone, que Ndiaye. Il y a eu tellement de réalisations sur le plan euh, routier à telle enseigne que la fluidité du transport peut être notée. Euh, dans la ville de Kaolack, actuellement, il y a beaucoup de panneaux solaires et parmi plusieurs, parmi les programmes du président Macky Sall, on peut noter qu'il y a une augmentation de l'électrification au niveau de la ville, au niveau de Kaolack commune. En allant vers Medina Baye, vers Kahone, vers la sortie vers euh, le pont Noiro, vers la sortie vers Dakar, n'est-ce pas, vers la sortie vers Gossas, là vraiment c'est une visibilité à vue d'œil qu'on peut noter qu'ils ont fait des efforts avec le plan Sénégal émergent pour l'électrification. Et c'est aussi le moment de noter que toute l'électrification rurale a été réalisée par rapport aux faubourgs, aux villages qui sont euh, aux environnants de Kaolack. Mais euh, on ne peut pas parler de toutes ces réalisations sans pour autant évoquer le problème du port de Kaolack. À la veille des élections, le président Macky Sall était là parce que vous savez que le port de Kaolack, ça existe plus de, depuis plus d'un siècle et demi. Le rattachement du chemin de fer de Guinguené au Kaolack a fait du port de Kaolack qu'il a été le premier port d'exportation d'arachide de l'Afrique occidentale française. Mais véritablement, le port a vu le jour à partir de 1931 où on a construit 600 mètres de quai de là où je suis assis jusqu'au pont Noiro là Donc, les bateaux rentraient hein, les bateaux sortaient. C'est un port, un bras de mer où il faudrait faire un dragage. On est venu, le matériel est là. Dans le port de Kaolack, ils ont fait des essayages. Si jamais le port de Kaolack ouvre ses portes, tous les camions qui quittaient Bamako pour partir à Dakar n'ont plus besoin de continuer jusqu'à Dakar. Ils vont s'arrêter là. Le port là peut faire beaucoup d'activités, n'est-ce pas, pour redonner espoir à l'activité économique qui se mène ici euh, dans la région du Sine Saloum. Macky Sall a fait une réalisation telle qu'on l'a fait à Tuawan, à Pire et tant d'autres lieux. Ici, on peut voir par exemple à Merina Bay la construction d'une très grande salle de conférence. am bijou bu mel nii ñu yàgg ko fuglu doon ko ut ba mu jigi xalifa bi génn àddina dafa dajale mbokkam yi rek waxtaan ne li ñu am nañ commencé. mu commencé woon ba fondement ay trois trois cent et quelques millions bi fi président Macky ñëwee mu wax ko mu ne ko bàyyil fi nga yem man dina ko yeggali euh, matul presque euh, ay mois ñu ñëw jël promoteur yi ñu ñëw xool liggéey bi saytu ko def ko ba mu mel ni donc ñaari bloc la benn bi def na cinquante huit chambres euh, ak six suites muy bii nii def na une grande salle la plus grande salle de conférence dama daan wax spectacle ñu aaye ma ko mais euh, vraiment salle boo xam ne moo gën a rëy ci Kaolack xam ne CRD yi ñuy def sax ci gàmmu gi ak pas mal ci yi ñuy def ci ministère yooyu fii lay xaj. El Hadj Ibrahima def na ko woon man de fukki soxla laa am bu njëkk ba mooy jumaa ji bu ñaareel bi mooy jumaa bu ñetteel bi mooy jumaa ba ca fukkeel ba mooy jumaa. booba fekk na mu ngi liggéey jumaa ji moom Alaaji Ibrahima tàmbali na projet bi ba projet bi euh, dem ba liggéeyu maçon bi jeex mu des décoration yeeg et ci aju président xamal ko ne ko moom Macky bis bu ma yàlla joxee réew mi de bu ko ragee danaa jël liggéey bi àggali la ko na ko bëggee woon yàlla def na ko président waxee woon Alaaji Ibrahima nan danaa ko àggali noonu la ko doxalee moom président àggali ko na ko sëñ bi bëggee na ko sëñ bi bëggee defar lépp ci jumaa ji ba jumaa ji àgg ba jumaa ji àgg ak jàmm nag yàlla def président dawalee otoom dakaar ñëw ba fekk fii sëriñ bi ànd ak moom ñu dugg ci jumaa ji julli tijji jumaa ji jébbal ko askan wi jébbal ko julli ji jébbal ko waa Kaolack jébbal ko réew mi yëpp. xam naa nag du du politique waaye bu ko keneen defoon aussi ñu nekk responsable bu ñëwee dañ koy moom moo ko def dëgg-dëgg moom kenn lañ ciy gërëm di ko ci ñaanal yàlla. nous avons des espaces commerciaux nous avons euh, une télévision nous avons une radio. et des banques vraiment euh, un marché de développement, d'autant plus que euh, la ville de Kaolack actuellement est en train de développer parce que aussi c'est une ville qui est essentiellement jeune. Si nous faisons plus de 500 000 habitants, je veux dire la commune de Kaolack, si on faisait la pyramide des âges, c'est très élargi vers le bas, on peut constater que ce serait en forme d'ogive. Ça veut dire de la population a de 35 ans. Par rapport aux autres politiques et par rapport au programme, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de réalisations en allant du PUMA, des programmes d'urgence, le PUMA, le PADES, n'est-ce pas, le, le, euh, l'FNPJ, l'ANPEJ, n'est-ce le FONGIP, n'est-ce pas, euh, le fonds 6 et il y a des représentations départementales, régionales qui sont à Kaolack. population de Kaolack, vraiment, avec les yeux ouverts, nous avons bien constaté les réalisations que le président Macky Sall a eu à effectuer dans la commune de Kaolack et ça vraiment, il faudrait le saluer. Donc, de par ma voix, les populations de Kaolack remercient le président Macky Sall, d'autant plus qu'il est issu de cette région parce qu'à l'époque, c'était la région naturelle du Sine salum Originaire de Fatick, il a fait ses études secondaires ici à Kaolack, euh, précisément au lycée Gaston Berger de Kaolack à cette époque. Donc euh, la population de Kaolack remercie le président Macky Sall par rapport aux réalisations faites depuis qu'il au pouvoir. man namm naa la de.